seqoon ak moom waxtaana ah, jotaay la boo xamante ne képp ku toog sa kër rek di ko bàyyi xel ji nga ci jëriñu waaye it loolu rek la ñu ci bëgg ah képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi Sénégal Buzz 221 xel euh, bu ñu si seqee ab nit waxtaan rek ku ci ne jëriñu ci jariñu ci loolu la ñu ko bëggee dañu koy bàyyi rek mu joxe dernière kàddu yi ñu te waaw waaw waaw point boobu aussi maam bëggoon naa ñëw sama papa analyser ma ko Balla Gaye Bombardier waaw Balla Gaye Bombardier di ñaan rek. loolu analyse bi papa boo gisee ñaari xale yooyu noonu keroog ba ñu taxawee ci face à face bi nga gis ñaari forme yi ku ci ne tey boo ma doon analyser làmb jooju ci tënk nu muy demee. di ñaan yàlla suñu boroom ñaari mbër yi. Mhm. yàlla may leen wér. amiin may ko sénégalais yépp ak sénégalais yi. Mhm. premier janvier bés bu symbole la ci nun mhm. yàlla nañu ko fekkee. réew mi fekkee ko corona bi jeex. amiin jàmm am. amiin amiin. dara bañ yëngu. ñaari mbër yi nekk ci jàmm ba daje. mais Balla Gaye bii daje ak Bombardier revanche. Hmm. bokkut ak Balla Gaye bi Bombardier daanoon. différence bi. boo xoolee yaramu Balla Gaye bii bokkut yaram bële Balla gay amoon. Hmm. Hmm. Balla bi daje woon ak Modou jëkk. Balla Gaye bi daje woon ak Tyson. moom laa gisaat. moom nga gis nii. waaw yaram ba ñuul na. waaw sidit yi génn na. nga xool fa yax ya nekk. waaw bu nu fi yàlla bàyyee làmb ju neex lay doon. Mhm. ju gaaw. Mhm. waaw bu ñu xeexee ñoom ñaar kuy am avantage. non du ñu xeex. Hmm. xeex bi wut bu xeex wut bu xeex wut buntu la rek. Mhm. parce que bu arbitre soufflé ñu léewtoo xam nga Balla moom mooy ñaan revanche. waaw moo war a wuti. Balla naka jekk mooy wuti Balla mës ta bàyyi kii Balla mës ta bëri ku wut ku mës a bëril moo wut wutoo. moo wuti ji ñépp nag. <laughs> Uh-huh. waxati naa de. waxati nga de. a bëril moo wut wutoo. Uh-huh. bala ngaa uh-huh. hmm. ñu defee balancement de bras. waaw Balla dina ko su ko mébee xam nga ne Bombardier ba mu juddoo ba léegi mës ta dégg arrière. wallaay du arrière kenn moom it. dañuy daje ñoom ñaar bu ñu rénkum ñuy def daje. wuti wari bëri. combat boobu xalaatoo ci match nul. non non wala ay. du am ci àddina. mukk ci àddina. Balla Gaye ak Bombardier ku nii rek ñoom boo defee ni ñoom dangaa defut ni ñoom waaye boo defee ni ñoom niil du am. Hmm? maa la wax loolu. décision arbitrage tamit jàkkaaru mu am ci. non non non non liy tax décision arbitrage am ci yàlla bu ma am mooy kenn blessé làmb ji damm yàqu. wala puusante ba mat cinq avertissement loolu tamit. non puusante du am ci ñoom ñaar duñ pour Balla de puusa puusante. <laughs> non non non non. mukk ci àddina puusante du am. Mhm. bu arbitre su fee topp seen diggante làmb ji jeex. waaw ñaari gaynde la de. waaw du jeexee ci xeex ci bari lay jeexee. Uh-huh. waaw bés bu rëy la boo xam ne bii ramas la. Uh-huh. parce que mbëri dañ ma di may seen moroomi ramas. Uh-huh. moo tax Bombardier ko am mérite la. xam nga man dama bëgg mbëri muy may ramas xam nga ragal du may ramas. waaw. guerrier rek parce que ragal day daan ko ko man mu wóor ne kii daan ko ko mais moo la man. Mm-hmm. mais boo wóolu sa bopp gëm yàlla gëm sëriñ. Mm. boo wóolu sa bopp gëm yàlla. Mm-hmm. gëm sa bopp. Mm-hmm. koo daan bu la ñaanee rawaas bu ceegee nga may ko ko. mais boo xoolee Bombardier ku ko mas a daan ci àddina ñaan na la rawaas ku masa daan soo ko ñaanee rawaas mu may la ko. waaw. Ah. donc ñoom ñaar ñëpp euh, fi mu ne seen position baax na. waaw ñu ngi ci état. ñu ngi ci état ñoom ñaar ñëpp waaw ñu ngi ci état ñu ngi ci état. Mhm. Bombardier défaite bi mu jëlee woon fee ci MMA bi yaakaaroo mu wàññi ko ci làmb ji. non non non quand même sax. Mhm. parce que dóor mu daanu. Mhm. dina bàyyi séquelle ci athlète. mais Bombardier xamul loolu ragalul. ragalul <laughs> ragalul. ragalul xam nga. ñi ëpp fit ci làmb ji ci la bokk. Mhm. waaw wax dëgg yàlla. Mhm. bu fekkee waxal nañ yàlla rek daalin kóor Bombardier daalin kóor la. Mhm. ku bëgg ni kóor ku bañ ni kóor. Balla nag day tambalaayal saa beey. Balla Gaye. kooku day tambalaayal saa beey. tambalaayal saa beey. maa la wax loolu. liiru jaar naa la woo téléphone laaj la ko nga leeralal ma ko <laughs> liiru dina ma leeralal tambalaayal saa beey. càppaacoli yi sax am na ñuy wax ci càppaacoli bu fekkee caaxaan dem dëgg dëgg-dëgg. Palay hmm. càppaacoli. mooy càppaacoli. waaw càppaacoli Alassane Ndiaye ko waxoon. Hmm. ci bàyyi bàyyi ci bàyyi ci ci ci bàyyi bàyyi fa ci bàyyi Ama Balde. Hmm. bëri landing ak Faalay Thiès ca la Alassane Ndiaye alu làkke wan làkk wure ca la waxee ni Faalay naaw na. parce que landing daf ko boot Faalay yokk boot bi ñu jóg 1 mètre ci kaw Faalay yokk boot ba pare. ba mu Faalaay daf ko boote ca kaw. Mhm. bàyyi landing mu dawlu si Faalaay topp ko. Hmm? loolu kenn mësu koo gis. déedéet déedéet xam nga boot am na bootar ñaam na. Mhm. loolu nag xale yi ñu bëri. xamuñu ko xale bu daan nga ni ko noo daane xamu ko. waaw xale bu teq xoolal bërki démb le professeur. ce garçon là Tidiane Faye Tidiane Faye. oh oh remplacé bi mu remplacé adversaire am ni mu bëree. te wuyu ma. moo tax de bu caaxaan di ma dëgg des. Hmm. maa bëgg mbër mu man a bëree. na xale yi jàngiwaat bëree mbapataat. xale yi dañ dem mbapati moo gën. Hmm. boo jàppee xoolal bi waa ji fëxee xanaa xamoo ne Tijaan moo bëgg waa ji fëx. waaw. dafa daf ko sexal tànk bi mu fëx mu dóor ko tànk bi ci biir dafa tas tànki waa ji. waaw waa ji tërëf mu wër ko ndombo. rotation rek wër ko. waaw. Hmm. mais dafa fël tànkam. lii la ko def. loolu mooy pàddum biir. pàddum biir waaw. daf ko padd paddum biir paddum uh-huh. biir daane ci yombut bu dee loxo mën nga cee daan moo dee bëri tànk mais def ko fàdd tas tànk ya uh-huh. xam nga tànk ya bu fekkan ni waa ji tànk yi jigéen ña uh-huh. day njaam njaamam goro mais dafa tas tànk yi waa ji dafa dafa tas tànk yi xajal ko waa ji dem mu wër ko ndombo waa ji xam-xam la ko daan Alioune Seye nu mu tuddati kan la ci Alioune Seye junior moo ëpp doole. Mhm. moo féete ndaw moo gën a diis. Mhm. mais xam-xama ko daan. xam-xama ko daan. waaw bëri xam-xam. waaw Fall dafa bëri ak duut ba ka saar. Euh. duut ba daan ko. Mhm. mu ñëw ci Alaaji Basiru Jaaj ni ko lu ma daan mu ne ko jinnee la daan ndax kere Fall dafa bëri lu bari. Hmm. dañu lagg Fall jaar fii duut ba jaar fii Faalay am Fall am. 95 90. du bakk am cent 140 kilos. àlla hmm. jab lay naar sàmb taxaw ci géew bi. Eh. rëdd benn rëdd. booba mi ngi faral faal mi ngi faral dut bakka saar ndax àlla jab lay séeréer la faralan mu rëdd benn rëdd ci arène sénégalaise. Hmm. ne yéen ñaari bëri xool leen ma. boobu mooy micro central bi. Uh-huh. booba li xew li ñuy tere bari na léegi. waaw ne yéen ñaari mbëri bu leen génn rëdd wi. Uh-huh. faal dikk ni ko Ablaay mu naa mu ni ko danga maa yërëm ndax yàpp waa ji dafa bari. rëddaat weneen rëdd wu gën a ndaw ci biir ne ko rëdd wi nga dina rëy na baal ma rëdd man mii bëreeg sa at sa supporter ki nga supporter rëdd rëdd wu gën a ne ko Ablaye mu naa mu ne ko bu arbitre bi soufflé sa par mi dana génn rëdd wi eh. moo tax euh, bëre yi ñett ko composé ñett gudd rëy taxut nga doon mbër mm-hmm. ak bër deret la mm-hmm. bu njëkk bi da ngay am doole mm-hmm. da koy jàng ba mokk nga am fitte gëm yàlla Fall daf ma waxoon ni ma ku ci làmb junni nit xool la am nga fit mais fit wu dëgër ma ko fit wu dëgër fu muy feeñe mu ne ma ràng daara yi mhm. waaw ma ne ko ràng fan lay daare Fall mu ne ma ràng la làng mi ngi daare ci mhm. bëgg a jëlee avance wuti ay sëriñ entraîné mhm. boxe judo karaté sangoo lii nga naan lii suul lii sëf lii. Uh-huh. ñu dem ba war a delloo dàll yàgg sa seen ngeen des ci biir ne ma foofu la ràng di daare. wallaay dëgg la. ne ma foofu dinga nga indi athlète xool ko xam ni kii amul argument tey. Uh-huh. Uh-huh. moo tax sama waaju kenn du moom. mànga dë. mànga dë le roi des arènes suñu. Oh! ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar. kooku bala ngaa bala ngaa. bala ngaa xam ni kookoy ca koo koo kooku mooy dàllinkoor mànga deux uh-huh. ñu boole ko xeexkat waaw ne tey mànga dee xam nga damay wax ne Balla Gaye 2 bu ma amoon ku ma ko doon askanele mànga laa koy askanele mànga dafa mel ni moo jur Balla Gaye 2 ci ndawam ci ndawam dóor song mm-hmm. li mu daan kenn daanu ko cinquante quatre combats la bëri musuñu ko dóor mu daanu mosul dem ardo mm. c'est une seule leader dans sa génération ak après sa génération mm. Manga numéro deux mm. te li mu dóor mu daanu bari na ku mas a bëreel Assane Diouf bu ngeen rawaasee stade bu Mar Diop mu dóor la nga daanu mm-hmm. dafa bëri ki moroomam ba ñu jeex mm-hmm. mu daan ay magam ba ñu jeex dellu si ay rakkam bëri ñoom daan leen door a baax c'est le roi des arènes Manga 2 ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax le champion d'Afrique champion du monde moom it mën nañ lu ñuy wax ci làmb rek ah mooy bunt bi ah ndax it def na fi lu sénégalais yi kenn dootul miim ñu koy nii bu baax a baax a baax au passage papa kooku dañ ko daa indi xam ne jàpp nañ ko uh-huh. ñun dañ daa ànd ak moom ñëw joomaay dikk uh-huh. bàyyi njaga dara bi jóge Ndofane uh-huh. joomaay jóge Joyin ñu daje dugg stade stade Iba Mar Diop wala Assane Diouf mhm. wala jóob Diop wóor ne jàpp nañ yaas waaye da ciy génn mbër bu fekkee mënoo ñu jàpp la mhm. nga génn ci mhm. sa bër des na su fekkee situation mënta critique nga génn ci sa bër des na bër des na mbër ci mbër dëgg ci ay risque lay génn moo boo xoolee ëmma seen der la bala moo mën a génn ci kaakaa bi bëreekat la de. champion la. maa la wax loolu. Mhm. gaaju bi mu gaaju contre Gris Bordeaux mbay mbay géey doo nga ko mos a gaaju ci àddina ak Modou Pouy contre Daouda Fall. Mhm. boobu gaaju kenn mosut a gis gaaju bu méttee noonu. Mhm. waaw waaw. mais xool nga fa mu jaar Gris Bordeaux. loolu moo di mbër. mbër da ngay am détermination. am ay pexe. amul fit. Mhm. mën a muñ ci biir combat. Mhm. Fall daf ma waxoon ni ma am na mbër yoo xam ne mënuñoo muñ ci biir combat. Ah, bu méttee ñu bàyyi. <laughs> dëgg la. ñu léewtoo sa adversaire fixé la dem gauche dem droite. Hmm. nga dikk ci franc yi mu fermé taf. Hmm. toog ci tànkam ràcc xool la fixé la ne la jàkk. Hmm. armée gauche armée droite léewtoo yow dagg léewtoo bi wàññi boppam nga nekk ko. loolu foog nga mën a muñ soo mënti muñ dangay dem te sa dem du jot. <laughs> tukki saa boo ko anticiper mën ngaa dem boo indi si lu leer. waaw waaw. papa waxtaan bi neex na lool xam naa fu mu nekk nii moom <laughs> li olof naan li du nag du xaj ci cin li uh-huh. uh, dañu koy programmé waat fii ay jamono incha allah gën a yaatal ak sénégalais rek xam naa ne lu ñu tënk ci temps moo xaw a jot ni dama lay bàyyi rek nga joxe dernière kàddu yi rek ñu daal di tëj ci sàmb. Uh, dernière kàddu yi mooy sant yàlla bu baax. Uh-huh. di ñaan yàlla sunu borom def ci réew mi jàmm. amin amin di ñaanal ñi ko dëkkee. Uh-huh. di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou yàlla may ko gudd fan ko ànd ak wér. amiin Mbacke Balla di ndokkeel sëriñ Babacar Sy Mansour ak xalif général Sénégal yépp si Malick amiin amiin.